noppi day nee na li mu ëmb ci ay yiw mat na juróomi junni ndegam nag wàññi juróomi junni daa jafe ñu far jël juróomi junni yi daxañ leen ci juróom-ñaari baat wane ne kon juróom-ñaari baat ñi bokk na ci njariñi noppi tey juróom-ñaar yu ama am njariñ ba ci jëkk mooy boo xasee noppi rek yaa ngi jàmm yàlla ki sonnoo ndax noppi kese moom sonalul kenn te noppi gi ngir yàlla ak jaamu yàlla la ñaareel ba mooy noppi boo ko defee waaj nga doonte boo yurul boo noppee rek noppi nga doy waajtaay ñetteel bi mooy noppi day tax nga am ak wegu sax doo buur do wayu dur du te bo noppé rek amug wegu ñu weg la melne dur ñentel moy noppi boko ko yaangi ci bir karangé ndax man samata naja, ko noppi mucc kon nak bu ko noppi ni amna tata karangé lu am doole lu wër lo xamné dara mënu ko bëtt jall ci ci yow donte sax kenn gisula nga aaro lu nuru ben bâtiment ba ben saket ba dara ba ben juróomeel badara. day tax do jekki di dogal ngantuna jegal jégal ma de dama rëcc waaye nuru mo wona wax loolu de loolu de moom dama rëcc waaye pour léegi dama ko wax boo noppee loolu lu dal juróom-benneel mooy boo noppee nofal nga malaaka yi nga xam ne ñooy bind say wax ndax malaaka yi la yàlla booleel loo wax rek ñu bind ko kon nag boo noppee nofal nga leen ba ko juróom-ñaareel mooy noppi sutura la boo xasee noppi kenn du la xamal dara waaye nag boo waxee rek daal di feeñ kon noppi day suturaal awaray nit day suturaal sikkus nit boo noppee rek kenn du la xamal dara boo waxee nag dal di feeñ